Kamoje CMF here. CMF, huh? Asa, gis sa bagage jo jawa sa bagage bagage jam. Yam bagage. Boy, fexe naa jël sa bagage non yow yaa. ñu dof ba pare bëgg ñu dof loo bagage yu leen ñun dañ fay yor dara dañ fay am yor dara. dañ fay yor dara ay bagage. fela tudd fela tudd yeewu sama awla bi fekk ñu saada xaw ma ko wax saa si yéen ñaari. kii est-ce que affaire yi yëg ñëwul. waaw ah, mun naa si noo yow. waaw di dégg. ah. Eh, eh. ah taxawal. Eh, dara ah xaaral taxawal. nag seen. dara nag ay ay ay. sama bagage sama bagage. da ngaa muyoo dëkk ci kër gi. dëgg kan dafa dogal. ñoo ngi ko faale. yow yow xaaral. eh ah. eh. Ah. lu xew. waaw ñaaw moo nekk fii di indi ay problème ban problème ay sama sama yëf ak sama yëf du ñàkk fayda. yëfu lan jël ay yàq yu jóore. eh ubbi ma. yow. gis nga gis nga. yàlla mi moom kër gi amul suwa.